Euh, euh, honorable député yaa ngi en direct ci rajo Futur Média tey ji yow yaa fi représenté euh, intercoalition wàllu ak yi yaa ngi en direct ci RFM gannaaw bi nga voté ba pare naka nga gisee vote bi. sëñ Abdou daal mooy pour le moment nit ñi ñu ngi ñëw waaye nag goutte à parce que ni ñu waroon a génne massivement am na lu des xëy ne peut-être que dafa xaw teel mais ñu ngi leen di xaar. def naa li nga xamante mooy sama droit bi nga xam moom la ma yoon may wet naa ci bureau cinquante trois arrondissement bi nga xamante ne fi laa war a wote euh, bi ñu xëyee tamit euh, avant ñuy génn xool na centre de vote yi nga xam ne moo ne si dëkk bi yëpp waxtaan ak suñu mandataires yi ak ñi nga xam ñooy suñu représentant bureau de am na ay constat yoo xam ne gis nañ ko ci yoo xam ne am na yoo xamante ni ay bureau yoo xamante ni dañoo yeex a ubbi ndax manque matériel am na bureau yoo xamante ne maanaam ba ñu ñëwee euh, li nga xam mooy asulawaar bi fi ñu war a wootee amul ay couvert yooyu gis na gis nañ ko ci boo demee allié tamit am na fi bureau de vote yoo xamante ni

kon askan woowu nag waruñu toog seen kër ñoom ñëpp dañoo war a génn massivement ñëw wote ji ba 18 heures kenn ku nekk xam fi tànn fi féete euh, te aussi tamit di woo ñëpp ñu wote ci dal ku wote ba pare na nga dem sa kër nga toog bu ngoon jotee nga ñëw nga déglu say résultat ba pare ñu def circulation de vote parce que nit mënul wote ba pare bàyyi ay ay wotam muy demee neneen kon il faut ñu woo peuple boo aussi ñu sécuriser seen vote cycle seen won nag du tànk da nga ñëw di provoquer nañu daw bépp provocation boo xamante ni ñi ngi leen koy def jóge si beneen cas bi wax nañ ko si suñu mandataires yi ndax yëg nañ ni barki démb am na ay ministre ñaari ministre yoo xamante la république yónnee nañ ay car fii ñu def ay nervi yeen ñi ngi dëkk ñi ngi leen dalal suro ñen ñi ngi leen dalal Dar Rahman pour que ñu ñëw bu ngoon jotee ñu def sabotage li nga xamante mooy sant war rawat ni benn semaine ba semaine bu daaru ma naan ndax liñ wax ñoom seen réunion dañ yónnee woon fa ay nit mooy ñoom dañuy sol ay yére yoo xamante ni ku ku leen gis dañuy jàpp ne ci dëkk bi leen dëkk bu ko defee man ñëw provoqué li nga xam mooy mandataires yi xeex ak ñoom ñu jàpp leen bu ko defee centre yooyu wala bureau yooyu ñu annulé ko yooyu nag may woo ñëpp ñoo waxante ni yaa ngi a ngi aju ci coalition bi nga xam ne mooy wàllu ak Yewwi bi nga xam ne maa nekk tête liste bi ni man Cheikh Abdou Bara Dolly wowuma kenn ci fitna na ñëpp wote ci dal mais na ñu wote ba pare nag nañu sécurité seen wat ba nga xamante ni li ne sécurité daan ko mën a wax askan wi bu ngoonee le meilleur qui gagne loolu mooy li nga xamante moom lañ si wax di aussi tamit di alerter aussi ministre de l'intérieur parce que lu am fii si Touba moom mooy responsable na xam loolu parce que mënuloo nekk ministre de l'intérieur pare di far te ku ne xam na ni Antoine Félix Diome dafa far ñun xam nañ loolu parce que bari na ñoo xamante ne tey fii moo leen débouché jox leen ay moyens ñu campagne pour kii waaye nag en tout cas ñi nga xam daal Sénégal ak Touba ñu ñëpp bokk dëkk bi Serigne Mountakha jàmm la bëgg ak dal kon jàmm ak noonu maa ngi ñëpp pour que ñu wote calmement dem toog seen kër ba ngoon jot. première bi gaañ.